crédit moom moo ko waxoon moom moo ko waxoon moom moo ne bu ma demee wax ne woon ci yenn conditions ci yenn conditions aussi ça tamit il faut ah, ngeen mais instant bi condition génnagul de. non non ah, mais ban condition moo génn condition bi est-ce que du libération détenu te loolu d'ailleurs. Euh, dépendé na si si kon yéen vous êtes d'accord bi Sonko mu ngi wax ak Macky Sall yéen. non non amul d'accord amul d'accord non xam nga xam nga mënuñu wax d'accord ak ñàkk d'accord. parce ñu wax. parce que am na am na ay faits yoo xam ne dafa am. ma yow quand qu'on puisse dire tey tey mënoo te itam da nga rafetlu aussi chiffre ñuy joxe. Mm-hmm. kon am na mille et quelques. yoo xamante ne ñoo ngi ñuy tëj ñu mm-hmm. kaso ñu bàyyi leen su fekkee ñoo xam ne dafa ñu toj toj yoo xam ne war nañ leen mën a téye. tey mm-hmm. da nga ko président Macky Sall woo ko ma mu wuyu wala président Macky Sall yóbbante lii mën naa def lii mais dans ce cas loolu est-ce que mënuñu ko rafetlu. est-ce que loolu itam waruñu ko rafetlu rek a dugg ci dans la négation critique. waaye léegi ak Macky mën nañ koo rafetlu. waaye bu xalifa Sall mi doon lijjanti candidature am ak ak Macky Sall bi mu ko xamante bi nga xamante ne. mais loolu ñoom la mu koy def sénégalais yaa ngi seetaan. Mhm. boobu dañ koy lu bii ñu rafetlu ko. loolu pour lan la wala yow euh, Khalifa Sall moom mooy ñaaw yaa. déedéet. ah lan moo tax ñuy ñaawlu ñu rafetlu ko non yéen de votre côté laa wax parce que résultat yi parce que man man quand je parle de rafetlu je parle des résultats. parce que tey résultats yi quoi qu'on puisse dire tey day impacter Sénégal yépp du impacter kenn simplement Ousmane Sonko. mais très cher résu dialogue bële dafa amoon euh, kii résultat tamit. waaw on a parlé du parrainage là-bas. bien sûr on a parlé des cautions là-bas. bien sûr te loolu yépp après ça été des résultats pour tous les candidats qui sont candidats aujourd'hui mhm. donc loolu tamit dañ ko war a rafetlu. Ah, mais rafetlu nañ ko bañ ba mu waree. waa léegi ñun ñaawluwuñu la fekk la que les gens assument que ñoom ñoo ne woon du ñu waxtaan te tey ñu ngi waxtaan. mais est ce ngi waxtaan loolu mooy ñu ngi waxtaan. man man condition laa teg dama ne su mm. fekkee ne waxtaan am na. mais résultat yi parce que man ce sont les résultats ak la ñu waxtaanee ñoom ñoo ko xam su fekkee am na waxtaan ñoom ñoo ko xam parce que tey maa ngi déglu El Malick Ndiaye moom li mu wax dafa leer. Mm. moom dafa ne su fekkee Ousmane Sonko moo waxtaan ak Macky ñoom en tant que de Pastef en en tant xam ne ñoo ngi ànd ak Ousmane Sonko yëguñu ko donc lépp la fa am Ousmane Sonko la la la la wax ni lan lan la may souligner waatal mhm. gis nga waa Pastef ku leen waxaloon dara balaa ñoo tëdd ci guddi balaa ñoo tëdd ci lal dañ koo weddi ñoom ku leen waxaloon dara communiqué ñoo ci gaaw dañuy weddi mais bii Atepa génn na wax weddeeguñu Atepa ba léegi Alioune Tine génn na wax weddeeguñu Alioune Tine ba léegi nit ñaa ngi wax chaque jour Khalifa def na conférence de presse di laajte weddeeguñu xalifa ba léegi ñoom daal ñu ngi toog instant bi di def la carte de moi je suis pas au courant de faire genre comme ça mm. Sonko la parce que Ousmane Sonko mënul tontu mu ngi ci biir kaso bi alors que ñoom lu leen waaye waxaloon ñu weddi ko hmm. léegi lan moo tax mënuñoo bu fekkente ne concertation amul comme tu dis amul comme léegi lan moo tee waa waa Pastef weddi loolu ñoom mën nañu weddi lu ñu xam wala ñu xamul. ah waa Pastef de xam nga ne ku leen kuy deewante dara si ñoom sax ñu génnee communiqué weddi la. loolu loolu loolu mooy seen mais yow yow tey yow est-ce nga weddil xalifa loo xamante ne yow xamoo ko. weddil xalifa non exemple. waxu mm. mais c'est ça. man xam nga tey yow mënoo weddil sa leader loo xam ne xamoo ko ci moom yooyu da ngay am yaakaar xili ci moom que ne chaque fois il pour intérêt wu Sénégal en premier en premier pour intérêt wu itam yéen ñi nga xam ne yéen a ak moom en second. donc nañ dañuy waxante dëgg donc tey euh, ñoom Sonko. gisee de El Malick euh, de communiqué officiel de de moom waxuma El Malick. d'accord léegi léegi léegi avançons avançons un parce que comme ñoom ñi ñuy wax nee nañ yëguñu ko ki war a tontu xëy na tontoogul parce que il est euh, dans les liens de la détention foofu tam je pense que luñ ci taxaw taxaw mënuñu ci régler dara parce que ki war a wax feeg waxul. Euh, statut ci la ñuy nekk. ku waxul daal nangu nga. léegi yéen léegi yéen lan ngeen di. <laughs> lan ngeen di lan ngeen di ragal. Mhm. parce que bu weesoo euh, libération détenus politique yi am na ñuy supposer ni que xëy na au cœur de ce dialogue de ce supposé dialogue mhm. il y le report de l'élection il y a Euh, le fait que ñu reprendraat processus bi. Ah pour que Ousmane Sonko mën a bokk. est-ce que yéen loolu mooy seen principale crainte yéen waa taxawu ak seen leader Khalifa Sall. bon je ne dirais pas ñun waa taxawu ak suñu leader Khalifa Sall mais man personnellement man loolu laa gëm man que concertation bi am fi mu nekk nii. wala waxtaan bi am fi mu nekk nii Ousmane Sonko lu muy lijjanti mooy nu mu nekkee candidat nu Diomaye bañ nekkee candidat ñu reprendre processus moom mu ñëw nekk candidat report des élections bi man ci sama xalaat Ousmane Sonko loxoom génnu ci sama xalaat man munu ko waxal xalifa munu ma ko waxal taxawu Sénégal aw ma fit boobu mais pour man moom gëm naa loolu gëm naa ne il est à la source de tout ça. Hmm. gëm naa ko man. kon loolu ngeen di ragal ci dialogue bi moo waral xëy na ngeen bëgg mu assumer au moins pour que les il faut qu'il s'assume ñu xam lan quest a été dit qu'est-ce hmm. qui été refusé quest il faut que les gens savent ce qui se passe franchement d'accord euh, est que tamit euh, crainte yi bokk na ci xëy na Khalifa position bi mu amoon <coughs> mu bañ ko amati parce que bi mu dialogué euh, ak le président Macky Sall moom a Karim Wade yépp on pensait que leur cas était réglé mhm. Mame Mbaye Niang biñ jubee élection yi taxaw na fi mu ne les cas de Khalifa et Karim sont loin d'être réglés sont loin d'être résolus mhm. et que xëy na sax dañu war a tëggaat dialogue pour régler waat seen ay seen ay seen ay mbir mm-hmm. Karim Wade ak lu mën a xew nekkul candidat mm-hmm. Mame Mbaye Niang a eu raison ou mm-hmm. à discuter Khalifa tam su fekkee dañu defaat processus bi mën na bañ a nekk candidat parce que kenn xamul lan moo mën a xew entre temps politique moom tout est possible on dit jamais jamais mm -hmm. est-ce que tam loolu bokk na ci li ngeen di craindre que bu ñu tëggaatee ñu euh, éliminer seen candidat se basant sur que Mame Mbaye Niang avait dit ku nekk xam na ne moom Euh, ca tànt ba la nekk te ne nañu naar bu ndaw lu mu wax ca tànt ba la ko déggee. mais man je pense que ay affaire du tëggaat élection man en fait man loo xamante ne ni d'accord ma ci. Mhm. du ma ci nekk di si spéculer. naan dañu war a tëggaat wala bu ñu tëggaatee lii mooy xew parce que tëggaat pour lan pour lan amu fi yoon en fait. Hmm. man loo xamante ni gëw ma ne war na mën a nekk. Mhm. du ma si nekk di spéculer ba nit ki di ci am beneen xel. Mhm. tëggaat amu fi. parce que conseil constitutionnel génn na wax na lu leer nañ mhm. donc fii ay tëggaat ay defaraat génnewaat liste bi affaire yooyu noonu mhm. noo man gëw ma loolu war a am la Mame Mbaye Niang nag ce qu'il dit sax <laughs> moom la engage en fait mhm. moom la engagé day wax li mu xalaat comme Adji Binta mu toog fii di wax li mu xalaat c'est tout mais léegi yow en en tant que koo xamante ne euh, sa xam-xam xaw na màcc tuuti xëy na yaa ma yaa ma yaa ma ëppale xam ci wàllum yoon ak yoonaan mais tey processus engagé woo ñu demee ci ba euh, parce que ñoo ñu xamal tey tey sax moom mooy nekk dernier jour franc peut-être suñu xoolee ci app yi nga xamante ne moom la ñu mën a président war mën a sukkandiku ngir euh, indi décret. Mhm. ngir euh, wax ban jour la ñu war a amal élection yi su tey mën nañu wax ne président il sera dans mën a jël décret parce que dina jéggi app yi nga xam ne moom la ñu ko may est-ce yaakaaroon leen wala ragaloo leen sax que ne. suñ demee ba président mandaam jeex ki nga xam ne moo nar a wuutu président muy peut-être président assemblée nationale su ñëwee day indiwaat benn processus boo xam ne yéen maanaam li doon wax naa bokk bi rek est-ce que foofu da amee sooke exemple. mais euh, tey euh, jii par exemple si on va dans l'hypothèse que président bañ a génne décret tey. Mhm. Euh, ñu dem ba 2 avril nekkatul président maam Diop ñëw nekk président. Mhm. mais maam Diop ban légitimité lay am pour bañ a def li conseil constitutionnel wax. parce que tamit conseil constitutionnel conseil constitutionnel président mënul teggi ay waxam mais dafa ne daf kon dañu organiser élection. mais organiser élection lay def mais organiser élection ça rime aussi avec euh, processus électoral bu ah, bees. électoral a déjà été fait. il n'a pas à reprendre le processus électoral. et pourquoi il n'a pas à le reprendre. pourquoi il devrait le reprendre alors que ça a déjà été fait def nañ ko. a réparer nag. injustice loolu Macky Sall la ngi nii mooy président ah, fi mu nekk bu ko neexee def ko du loolu la jéemoon def. moo tax nag il n'a pas réussi à le faire parce que sa loolu ça n'a pas lieu d'être et le conseil constitutionnel l'a dit te li conseil constitutionnel wax président munu ko teggi teg ko fële loolu mënul nekk. mënul nekk ah conseil constitutionnel bu waxee ah, dara ci ah. élection dañ koy def dañ koy jëfee. kenn mënu ko teggi ces décisions ne sont pas susceptibles de recours sont hmm. irrévocables. on hmm, hmm. apprend l'arrestation de Ngagne Demba Touré par la DIC. est-ce que lool tamit ñëwul xëy na euh, euh, teggi li ñuy wax. effet de décrispation déggoo wala <laughs> waaw wala da nga jàpp ne la juste pour maquiller. euh, cette entente-là mm. qu'il y aurait. Attendons, attendons. <laughs> Ngagne le fuyard il est de kon dañ ko jàpp nañ ko waaw mm. par la DIC. <laughs> je je même pas au courant dañ ko jàpp. sànq lañ ko jàpp mais ah, jii lañ ko jàpp. sànq sànq même d'accord donc a ah, en tout cas de man xalaatoon naa ne dinañ ko jàpp. si on est dans un état de droit wax dëgg yàlla. Mhm. dañ ko waroon a jàpp. léegi nag mu ñëw di def caravane ñëw di génn si télé yi di wax lu ko neex di ñëw di xas ay nit taakale leen sax waaw di xas ay nit yow man mënuma comprendre yow nit ñi nekk fi di xeex di reyante yow nga jël sa mbuus dem sa yoon ba mu neex la nga ñëw nee nga yow da ngay xas ñi nga xam ne ñoo fi desoon di di xeex vraiment ngañ dem ba toure moom vraiment man il na mérite même pas que may attardé sama bopp ci ay waxam hmm. mais ce que je sais comme que on est dans un état de droit hmm. man jàppoon naa ni ku ñu war a jàpp la hmm. a cause euh, de ce qui s'est passé avant qu'il ne parte et loolu lu ñu war a leeral la même bu dee day génnaat après ñu jàpp ko leeral loolu ba pare après buy génnaat mu génnaat parce que on est dans un état de droit tamit. on est na ni ngeen ko njoxtee yéen. Mhm. Euh, est-ce que euh, mën na nekk pour. mascarade mascarade wala pour leurrer ñu rek. mais mais moom am na moom. déggoo mais pourquoi autant de pessimisme par rapport à ce dossier là. mais ñoom dañuy ragal xam nañ ko